di ñaanal waay dawlu yëpp yàlla xaare leen àjjana te yéexuñu di ñaanal sama waajur bu góor yàlla xaare ko àjjana fu mu nekk suuf oyof ci kawam di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sama yàlla bàyyi ko fi guddal fan ak wér gu yaram ba mu fekk suñu njëriñ di gërëm waa Malika yëpp di sant Malika fépp benn baraak yëmbal buun ñëpp xam cargo mu nekk na cargo boo xam ne cargo national la maa ngi bëggee ñëpp yëpp bëggee cargo rek maa ngi bëggee di ko siyaare di la bëggee boo xam ne moo gën a naqaree uti adversaire non booy Pétérsele bëgg a wane suñu bopp rek nit ki moom boo tollee sa wane sa bopp moom mbër bu ñu la jox da koy jël mbër la muy mbër rek day wut dara muy wut dara te affaire dama ko gën a bëgg trop ndax bëgg naa nëgë xam ma raw fii ci kawee kawee kawee kawee ndax suñu xam xam naa ko bu baax ndax maa nga koy suivre mbër la muy mbër xam naa ko bu baax maa ngi koy suivre lamb lu mu laaj rek maa ngi koy dem ainsi maa ngi ci kawam maa ngi ci kawam nee na soo gisee mu jël la ñaari trop trop yi mu jugee moo tax mu jël la non non tolof tolof bi mu jógee yi moom yooyu muy wax noonu amul sax ndax tey jii nii booy xool man maa gën a baax palmarès fuuf ci làmb. defet yi mu jógee moo tax mu jël la. non mais baax na mais day delluwaat pour caaxaan damay liggéey. nee na dafay duggoon juum dugaat fi juum nee na dugaat bi du bëgg juum. non bu yeboo ko rek du fii de fii du baax de kon mu seeraat beneen yoon ndax fii du baax ndax fii dañ ko préparé bu baax a baax a baax a baax man booy potesel a jóg a jóg avant sax nga lekk fi ñu toll non dama koy lijjanti rek yoon la rek xam boo jaar da nga lépp mm-hmm. te ku xam ne doo xeexkat mm-hmm. waaw baax na <laughs> boobaa lay xam ne lépp dëgg la ndax man lépp préparé nañ ko jàng nañ xeex bu dee bëri moom allah mu ngi ci ñun te booy parcelle buy génn ci àll bi tamit di mbapat ñu dañuy génn ci àll bi di compétir bu baax a baax a baax yaa ngi bàyyi xel ne moom mi ngi génn ci àll bi non mënul ñaax ndax bu amee adversaire da ngay liir xaw lu mu mëneeg lu mu mënewul ñu ngi koy liir bu baax a baax te am na ci yaakaar ñun luñ bëgg a indi buñ ko indee nañ ko daan jël bu rëy ci darje sëy naama bilaay daan booy parcelle seen jël bu rëy jël bu rëy baa dama mën a bëri Cargo li nga wax loo gëm la wala looy wax la nii non lu nekk ci man la dama koo gëm ba pare mu nekk ci man xam nit buy wax dara day fekk mu nekk ci yow dafa nekk ci man bu baax a baax a baax a baax billaahi le 22 janvier bu parcelle dina xam ne lu mu liggéey baaxul waa Petersen seen yëpp boo ba indi a baax a baax a baax. billaahi. comment séntu nañ ci mu nga samp jaaga yow Kargo. non mu lu mu bëgg ñu fekk ko ci bu fekkee bu bëggee xeex ñu xeex ba naaw. booy Petersen boo bëggee xeex ñu xeex ba naaw maal dàq xeex maal dàq bëre bu bëggee bëre tamit ñu tax xeex bi fële ñu bëre ñu mbapat ñu xam ni carrément mënul mbapat billaahi wallaahi wa taala li muy def ci li simple nga ne mun nga ne mais nekk ci pungal di buuxante loolu du làmb gars yi dañuy ñëw di buuxante rek li càmbalu gars yi ñu buuxante rek. buuxante non barke sëñ Fallou dañ fay nekk des fois di buuxante ñun booy ñu leen a bëre. le nga ñu sampu jaaga. nga ñëw sampu ñu raak bu bëggee ñu bëree teg fee xeex bi ñu bëre ba keroog amateur yi jóg ma daan ko jël bu dem ñibbi. waaye man nekkuma ci làmb ji di nekk fi rek boo def ko lu metti jóge fi barke sëñ Fallou billaahi lu metti laa koy def incha bu ñu yàlla yóbbee ci jour ba. moom nee na bu jour ba li fay neex lépp moo ko def mooy xeex mooy bëre mooy fecc mu neex mooy ambiance yéen yow da ngay ñëw taxaw. ndax ndax na boppam nekk ndax loolu bi wax noonu fii la buujoo ba sëñ Fall te waa Malika ñu ngi waaj lu garaaw ci laamu ji ba dafa jot ñu war suñu bopp te ainsi Malika dafa dafa dañoo yónni yaaxamtu ñu war ñu nekk fii nii di caaxaan ci dara billaahi wallaahi Malika dañoo yónni yaaxamtu ñu rek Seydina Muhammad nekk duñ di def ay kii nii non ñëw defal suñu yoon mu leer naa ñu ñëw jóge fi barke sëñ Fall mobilisation ñu ngi waaj bu baax a baax a a baax boo xoolee carrément sama koñ boo fa duggoon da nga xam ñu ngi waaj ak fépp nekk Malika fépp xam ñu nekk duñ cargo naan ay cargo bu benn ruq wala teewal képp ku dëkk Malika rek ñu ngi lay woo ci combat bi nga ñëw jàpp ci bu baax a baax a baax ndax soxla nañ ko bu baax ndax dafa jot ñu war a suñ bopp quoi insi boo gisee écrit bi nga xam ne insi nii booy fii nii war a ñoo doon ay champion quoi te booy ay ñu ngi entraîné bu baax baax a baax nekk suñu yoon xool ñu leen lu ñuy yàqal quoi insi ñun si lu ñu jub lu ñuy dañ cee bëgg ndam bu baax a baax ndax insi écrit boo xoolee victoire yi ñu xam ne booy ñu ngi liggéey bu baax a baax di gërëm nag suñu entraîneur mbël suñ coach mbël ñu ngi koy gërëm bu baax ndax day sonn ci booy ndax depuis ba ñuy xale di raam la ñu teete ba fii kon dara du ñu tàqalikoog moom quoi mu ngi jàppale bu baax di ko gërëm naan ko na jàpp rek taw baay dina baax làmb mu ngi kanam billaahi gars yi dina réussir te bu ñu réussir mu xam ne lépp dëgg la dina fekk bu baax bi tëgg seen làmb ci. non jag si di di ko wax rek ñun leen lañ am ak moom ainsi di ko gërëm ndax mbër bu bu bu nga ñëw jox avance mu waaj ñëw ak ay mbokam ñëw pour préparer làmb kooku amul di ko sant di ko gërëm bu baax jag si na ma sama deuxième combat moo ko tëgg. deuxième combat kan sama deuxième combat maa ko euh, kii la waay sa nekkul Amadou Badiane xaw ma sama ma diggante kii la woon waay euh, Alioune Seye booy baal jour noonu bëre woon naa ci teg si bii mooy deuxième combat bu doy mm. bii ñu ngi ñu ngi ñaan xam nga waa Malika ñëpp jàpp ñu ñëw indil ko mobilisation bu doy daan jël bu rëy ñëw ñibbi si Malika feete ko incha allah ñu baax ñu ngi te Malika yëpp leen di woo ku ci mel ni ay suñu papa Ndiogou Sow ñun di ko woo bu baax ci combat bi ñoo mu ñëw jàppale ñu bu baax mairie bi Talla Gadiaga nekk fi mais am na ñu ko fi nekkal tamit ñu ngi leen di woo bu baax ci combat bii nii sama waa koñ tamit ñu ngi leen woo bu baax di woo madame seen sama combat passé jàpp na bu baax Ablaye Diop bu mu nekk ci maire bi tamit ñu koy woo ci combat bu baax a baax a baax a baax Badji Cordo Badji ñu koy woo bu baax di woo waa Malika yëpp di woo zone Malika yëpp ne làmb ji seen làmb la ndax Cargo xaale la rek xam nga bëgg ko ko jàppale pour mu jógee fii ñu jëm ci kanam quoi ñu ngi leen woo bu baax a baax a baax Boy Patessal ni ko nag am na sérieux problème de man nekkatuma si làmb di caaxaan de Boy a wane suñu bopp bu baax a a baax mbel la ñoo yónni war ñu fenn mbel la ñoo dig affaire bo dañoo war a doon roi des arènes ci Malika fii lay jógee incha allah te si équipe bi lay jógee bu neexee yàlla <laughs> boo xeexee ma dóor ko mu daanu ma yéene ko ba ci kaw dóor ko ci suuf. rendez-vous. le 22 janvier maag booy PDS ma daan ko jël bu rëy. jaajëf ba Kargo Khalil Forever doxal la ñu dem tout droit la.